Sénégal daal boo fi nekkee boo fi nekkee da ngay dóor martu ni ñëpp waaw da ngay dóor martu ni ñëpp laa la dóor martu ni ñëpp eh, ku ne xam na ni man moom dañu dañ ma dañ ma xam sama maam géwal la waaw sama maam la ndax sama yaay koddu ñan ku ne xam na ni géwal la maa la wax ni ah, waaye boo bëggee tekki fii Sénégal nga bëgg fi tekki rek tekki ah waaw dugg ci ci xarfa xufa gi maa la wax li ah xar foofu fa ji xanaa hmm. hmm. xam nga ne lu baax rek la xam du ma tama de du ma tëgg tama du ma tëgg tama du ma wokki ndënd xaaral ma xool sama gars yi <laughs> la ma élargir. sa vocal bi gën a gàtt donc ah man hélas jaaxal nga booy vocal booy vocal nga mën a vocal vocal bu gudd boo mënta vocal gudd nga bind ba ah, seetal ma sama sama ñaata gel laa am ci daf dafa jar célibataire bu bon yow ay seetal ma ñaata ñaata gel laa am yow loolu war nga toog fi di ko wax kilifa ko toll ni man ñetti junni la dinaa la ko xoolal bu baax dinaa la ko yónni ñetti junni la na ko xam bu baax ngay doomet ñii man xale yi xamul tax ñu nekk ay dooméram rek hey, hey, oh. hmm. El Hadj Ndiaye yow say mbir mi neexul lu jëm de ah course gee jëlal boppam de benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar El Hadj Ndiaye yow yaay xaj yow nan nga mën a amee juróom ñaari gel ah. ñi ma yow da ngay udah ah da nga bëgg ma lim ma lim ah yow yow juróom ñaari gel yow nit nan la ko mën a amee kii mooy man daal bi kii mooy kenn dong la ci bëgg de juróom ñaar ñoo ñëpp dana la leer ni kenn nga ci bëgg am na gone bu jóg côté de xam ñaar ñi ñi kii mooy bandi lee kii turam commencé a xaw ma a nan a nan a xaw ma lu ci topp hmm, booboo nga bu baax moyal ba mu dëgër waaw moyal ba mu dëgër quinze mille kii mooy saay-saay tey bandi <laughs> waaye damaa xamul sett gel <laughs> waaye sett gel lu ko kii mooy kii mooy bandi waay waay waay bandi bandi bandi baaxul déglu ma xaar ma xool kii moom Tafa papa Serigne papa Serigne xoolal ma liggéey bi nu mu muy ndax mi ngi dëgër dëgër naa mu dëgërul Tafa Fall jaaykatu téléphone portable jor da ko wax ma xam la bu baax doomu Baye Malick Fall nga ma Tafa Fall jaaykatu téléphone xaaral ma xool la ma. nga yam looy wax nii ah benn ñaar ñett ñeent benn ñaar ñett ñeent benn ñaar ñett naa la xamal ñaar am nga wërsëg de waaye ñii de boo leen bàyyiwul de ñii <laughs> jong mi yii xale yii topp dara la nii boo leen bàyyiwul sa wërsëg dana yàqu di nga leen bàyyi de ci nii mbaa ca nee danaa la defal nag fasu xonq yi waaw fasu xonq moom boo ko gisee xamal ni danse la boobu moom dinaa la ko defal borom juróom-ñaari fas gaw yi dinaa la ko defal bu baax waaw ndax da xam na fa loo xam ci lu nekk nit mu liggéey bii xam nga bu baax liggéey bu doon xëy na peut-être yow yaa ko xamul mais liggéey bu baax la boo ko jàppee bu baax a baax a baax bu baax respecté ko hmm? di waxama la baax na daal ah rárá àfààfà bàbá mú jéggal ma loolu rek. lii rek ah xam nga ni tafaafaal yow yow yow da ngay fontu tum am nga ni tafaafaal da ngay fontu dëgg neexul ah na kii moom moom moom defoom leen noonu heure bu nit ñi moo vocal ci sama téléphone bi mooy vocal ci téléphone bi kenn dong la muy faal ki moma ma sonal ma déglu lu mo fogaal mom du fogaal mu ko jàmm ya. yaay bandi faal ya. bon faal amul dara loo may fogaal dara dara la dul fekk sa ku toll sa sëriñ sa baay amul lenn loo koy fogaal lu lu lu lii sa xol xam nga ni Wally mii doomu raam yi misigam bii fu mu yëkkat fu mu jëngatoon yëngal paa yi doomu raam xam nga ni kii kii kii mu lu mu wax moom sax moom ni mu

yow Fall xanaa booy vocal gi juum sax xam fi nga xam nga ne Wally Seck mi kenn nag ban paa moo koy muñ Wally jooberam ji ku koy muñ kan ni ma kan ban paa moo koy muñ du tee ma def sama yëfi baax yëfi yëfi sëriñ bi maa <laughs> baax na xam nga ne sama xeexeet yi yaa ma ko yóbbee leer xooloo ma lii rek mu te ci papa sëriñ yéen xanaa mu leen bàyyi sëriñ papa sëriñ xoolal ma ci sama ndaw si ah moom daal ku ciy wax daal waxee ndaw rek yow yow sa ndaw si ban ndaw la ko fonkaat ki la wala ku tuuti ki ah kii doon tax ngay daw di ñàlli ah xaaral rek yéen bañ maa bañ maa moytu rek.